yàlla defal la fatxul muy fatxul kamal ndax wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin sunu borom moom wàccewuñ ci kaw suuf lu dul ñu doon yërmande alam bi yërmande woowu nag dëgg-dëgg yërmande bi suñ jàkkaarloog jaam muy xul jaa alxaq mooy nga wax yàlla miy dëgg ndax loolu rekk mooy yërmande jàmm bu noppee di dégg yàlla rekk nopp yooyu fayul bor di ñàkk ci yàlla mu defal ñu sunu làmminu sang muy Maulana Cheikh Mouhamad Al Amin di wax waa parcelle yàlla na yàlla defal leen dégg ak topp ngir woote wii nga xam ne moom la Cheikh Moussa woote jaam yu bari umpale ko ñu fas yéene wax lan mooy njariñam ci xaalam bi ndax moom Cheikh Moussa nañu ko joxe woon yónnant noonu lañ ko ko joxe mu war ko wootee comme niñ koy wootee waaye it lam lañ joxoon yónnant yi loolu lañ jox ñu war ko defee comme nam ko defee woon te duñ ci yokk duñ ci wàññi na moom Cheikh Moussa wax na ne ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi may wax ana lu tax jàmbaar jamono boobu ñëw woote ci gis yàlla nga dégg waykat bi ne saafaray jamono bi njàmbe mooy saafara bi mu ne jàngoro bi nga xam ne moo nekk ci jamono mu ne ñàmbe mooy saafara si ñàmbe boobu mooy siruk laa ilaha illallah du jëmmi mose kura ba waaye maqaama bi nga xam ne mooy chaise bi ko yàlla teg muy chaise nubbootu boobu secret boobu dafa teg nit secret boobu mooy saafara bi ndax tey jamono lu ñëpp xam lu ñëpp teg seen bët lu ñëpp gis mooy féewaloo bi nga xam ne mi ngi am ci diggante jaam yi ak seen morom mu nekk ci kër yi nekk ci gox bi nekk ci dëkk bi nekk fu ne ñu dem ba di reyante sunu biir tey doon ay nit ñu dem ba ay boroom xam-xam di feeñ ci tele kenn ku si nekk toog ngir jàjj moroomam kenn ku ci nekk toog ngir diir moroomam maanaam gën koo mën a feeñ ndax loolu moo wàcce woon xam-xam bii ndax loolu moo sabab islaam déedéet Cheikh Moussa nag bi mu ñëwee mboolee tawat bi nga xam ne yónni woon nañ ab ndaw def ci moom xam-xam bii ñu def ci Cheikh Moussa tawat yi mu fi fekkoon yépp Cheikh Moussa fekk na ko fi bim ñëwee yit naka yonent bi défé won la ko ndax té xam nga lutax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim wacce ci jëm ju ñuy wax mustafa ibnu Abdullahi dafa dem fa nga xamné fofu mo moo doonoon bërëb bi nga xamné fofu la ab kéfer bëri won muy ci bir Kaaba gi Kaaba gi jubluwaayu wayu manam kep kum sa wote rek sampal nañ la fofu nonu ben statue moo tax kaaba gi bu ñu yaakaar ne jullit yi kese ñoom ñoo fa daan dem déedéet kaaba gi képp koo xam ne prophète mus na wàcc yow rek daa jublu bërëb boobu noonu. amoon nga fa statut boo xam ne defal nañ la ko fa statut boobu nag kenn ku si nekk bu ñëwaan statut bi nga bi mu yaakaar ne mooy boroomam statu boobu la doon jaamu Cheikh Moussa nag bi mu ñëwee tey da ko fekk ci biir turuux yi ñuy sol tubéy sol yére def ci dara parfum parfum bu neex dëkk ci ay kër yu rafet. ñooñu la fekk ñu di xërëm yi wallahi lazi laa ilaha illa huwa ndax lépp loo xam ne dog na sa digganteeg sa borom ba mënoo ko jàkkaar lool rek loolu xërëm la ci yow ndax fa ay na maa tawallu fa sama wajillaa te yaakaar naa ne leeraayu làmp bii leeraayu yàlla moo ko ëpp doole te pourtant de leeraayu làmp bii mu ngi may nit ba ko toll fu sori di gis waa kon leeraay bi nga xam ne mooy bawwaayu kullu leeraay muy leeraayu yàlla lan moo ko mën a nëbb ci jamono ana lu waral ñu ne Cheikh Moussa bi mu ñëwee xërëm yi mi ngi ko fekk ci turuux yi ndax xulil xaq walaw kaana mu rat mooy dafa fekk ay borom jamono yu teddoon ci pays bi bëggoon yàlla dara ñorul leen woon lu dul woote yàlla ñu woote ba jóge fi seeni ay ndono jël mbir mi def ko chaise bu ñuy toog te mbir mi du lool di ko wootee anam ba nga xamante ne yéeféeru démb yi noonu lañ ko daan woowee wootee waaye ñu indi ko ci beneen anam boo xam ne dañ ko solal yére bu rafet te doona xut lool ndax tey de bu ñu déggee yàlla dëgg ci li wax al ulama warasatul anbiya nit ku am xel war nga toog def seetantal def taddaburul quran fil ayati mooy yàlla bu mu waxee ne tëj naa buntu boobu ñuy wax buntu yónnent maa ngi tijji buntu boo xamante ne mooy buntu ulama u war nañu xoolaat bu baax léegi ndéem ndonok Macky sàll mooy Diomaye ndax tey joomaay lam sañ Macky Sall sañu ko woon ndax léegi nag Macky Sall moom sañati na lam sañoon déedéet ndéem loolu ci saa yi rek la nañu natt baatin bi ñu xool ñi nga xam ne ñooy ndonog yonant boobu ndax naka yonant yi daan wootee naka yonant yi daan defee ci seeni ay sahaaba ci seeni ay apôtre nañ ko daan wootee ndax ñu ngi koy wootee amul kenn koo xam ne mën na maa wax ne benn yonantu mës naa ñëw wax ne wala mu wax ma ne sëriñ tubaab moo wax ne képp koo xamante ne bëgg nga ma te gëm ma man sëriñ Touba maa yor sa àjjana ku ma ko mën a wax na ñëw ndax nettali bari na wax yi bari na te mu ngi réeral ñu bari te Serigne Touba mos sa wax lii ñu ngi koy sosal kaa yonent bi sallallahu sallam musta wax ne képp ku ko gëm dem àjjana déedéet képp ku gëm yàlla te nangul ko ci afala akunu abdan shakur nga doon koo xam ne danga koy sant ci li neex ak ci li naqari kooku noonu moom mooy aji texe kon suñ demee ba jamono ku tedd kooku woote ne inna allaha mindillaahi ayna muridullah ana yéen ñi nga xam ne namm ngeen dem ci yàlla man de ku jóge ci yàlla laa di xool ku ma àggalewaat ci yàlla nga walbatiku ñëw ba ci biir tariqa boobu bëgg a toog des ci lan àjjana Serigne Touba wootewul àjjana déedéet Serigne Touba képp ku ko séntu àjjana bu ëllëgee njiw na la ndax moom li mu wax dafa leer de ba mawtu baqaawullaahi serigne tuan neena fek yalla mu ngi sax di nek, man bamba may sax di des wa ña ko jël nak sul ko ci beurep ñoñu mom ana serigne touba bi daan wax ne ila siwa nafsu mom mom nekul kuy faatu anam motax buñ bu jaawale ak serigne touba ñun serigne touba la ñuy waxal ñun li ñuy wax serigne touba la li ñuy wax du modou bamba te jami nak dañoo dem ci xërëm bo xamantene dañoo jël jëm samp te jëm joo samp rek kullu la alaya fànn lépp loo fi samp te mu doon jëmm bés dana ñëw day fàddu ba mu des jëmm yàlla ji jëmmi yàlla jooju nag moom la ñu Cheikh Moussa jox jëmm yàlla jooju turuux bu mu nekkatut turuux boobu noonu képp ku fa nekk yaa ngi jaamu xërëm soo ko yégee ak soo ko yëgul te loolu nag moo waral tey jaam yi réere ko ba kenn ku ci nekk tarixaam lay jël samp Seydina Omar mi ngi koy wax léegi mu ne tasawuf du yoon waaye ndigal la te tasawuf boobu moo fi jiitu mbir yi aka mooy dëgg waa ndaxam yàlla waxul woon ne inna allaha wal malaikatu yusalluuna ala nabi dañ dégg aaya de yaa ayyuha allazina amanu joxe na ndigal sallu jokk leen ci kii nga xam ne man yàlla maa ko soloo waa ma ne butéel bu def parfum lan lañ ci yittewoo butéel bi wala parfum bi moo tax tey bu ñu demee ba axlu sunnit di yëpp sunu yenn mag yi maanaam ñi leen ñi nga xam ne ñooy ndono bi motax buñ démé ba nan gamu bid'a la di wax nan magal bi bid'a la jébbalu bid'a la manam ñi nga xamné ñom lañ fi wacc la mak ya woote won té kèn musu len ci yëpp lolu lañ jël def ci folklore wallahi lazi la ilaha illa waye buñ ko woote won comme ni ka mak yoyu wootee won damay wax ne kenn du jam baaraam yoon nga xam mom lañ tek ngir ag ci yalla te yàlla xam na ne di wax ne ñun bu ñu moytuwul ci diine dinañ bàyyi ndigalu yàlla dem ci sunu ay bëgg-bëggi bopp ngir lan yàlla moo ñu jox ndigal ne bu ñu tàqalikoo ci buum bim ñu boole kon bu ñu bëggee dem ba turuux bëggu ñuy tàqali nañ fi wàcc turuux yi te jàpp ci buumu yàlla bi ndax loolu rek ay dëgg waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqoo bu leen tàqalikoo la wax yàlla dafa joxe ndigal déet ngeen di tàqalikoo ci buum bi ma leen boole man mi moom Serigne Touba moom Alaaji maalik moom Baye Niass moom Cheikh Moussa moom keneen ak keneen yàlla nee na buñ tàqalikoo ci buum boobu buñ demee ba bëgg ci tàqaliku rek bay tàqaliku ci heure de prière di tàqaliku ci leneen ak leneen nañu xoolaat bu baax suñu digganteeg suñu borom ndax amul àq bu ci des ndax lay diine mooy déynu mooy bor bor boobu nag la Cheikh musaa fekk jaam yi gàccoo ko ci seen jëmm yépp mu woo leen ne leen kaay leen ma wan leen noo leen di fayee seen borom bor bi bor boobu nag loxo daka loxo bor la làmmiñ bor la nopp bor la bët bor la ci sa digganteeg sa borom lenn rek mooy tax nga fay ko mooy aaya yi yàlla wàcce ci nopp ne déglu leen yàlla gis leen yàlla wax leen yàlla dund leen yàlla dox leen ci yàlla jàpp leen ci yàlla xàgg leen ci yàlla yàlla nag cër bu ci nekk yàlla indi na aayaat boo xam ne moom mooy firnde ne maanaam sa jëmm ji yëpp amna lo xamantene dang ko wara delo yalla motax jaamu yalla ci kaw suuf dara tax koy jog lu mu xam yalla limay wax nak nan jaam du gis yalla wala nangam wala nangam loolu ko kay wax sa la sa la ndax dafa beuri lo xamantene tay ci jamono bu fekkee dégg nañ dëgg li yàlla wax xat jaa akum la wax ndéem dikk naa ba irun di gis yàlla tuddul bët de xat jaa akum la wax ndéem dikk naa di gis ba irun di gis waaw moom yàlla ndax boppam nëbbu na ko waaye nag gis koo gis mu ngi ci biir bët moo tax Seydina Omar mi ngi koy wax gis nga jaam yi Makka ak Madina bi lañu war a defar Makka gi ci ñoom ak Madina bi ci ñoom lañu war a defar ndax diggante xol ak xel makk la ak Madina bés bu fa yonent bi wàccee xol ak xel dañuy bokk lenn lu ñuy yëg lenn lu ñuy dund lenn lu ñuy gis makamatu da am fu makama di wacce ci jam madinatu bobu da fa am fu muy wacce ci jam ci diggante xol la ak xel 6666 yoy ngay wax sayyidna umar mi ngi nek ay ménage diggante xol ak ak akal araf yoy nonu mo lay leer ci yalla sa beut bi di gis yalla fang daj sa nopp bi di deg yalla sa lamine bi di wax yalla parce que ñaar ñooñu ñoo raccordé li nga xamante ne mooy deret bi circulé ci biir jëmm jooju noonu bu ko defee nag allahu moom yàlla nuuru doon leer samaawaati li sax ci bët sax ci nopp sax ci bakkan sax ci gémmin sax ci cëri kaw yooyu wal ardi bu ko defee nag nga tekki ko tekki baatin allahu moom yàlla nuuru mooy leeru ruu waaye wal ardi mooy leeru jëmm ndax al ardi ak xusnaa duñu benn déedéet al ardi lu tajliyaat la solo def doon jëmm ju ñu mën a laal la waaye alxusnaa nag ay pepp la moo tax mu ne allahu man yàlla nuuru maay leer bi nga xam ne man may ruu bi ne ci biir jëmm al ard ndax jaam yi faw ñu wax ak ñoom liy dëgg ñu xam ne maanaam tey pays bi ay kàngam ay kàngfoore lay defar ñoo xam ne seen bakkan bii jaral na leen ñu shahid ndax te mbirub Cheikh Moussa kenn du ko rax lu ca waay wax te bokk ci ñambe moo wax ñu dégg ci kaset yi mu ne dana ko dindi lépp lu ci yokk te du dëgg mu ne da koy dindi lépp lu ci waay dindi te muy dëgg mu ne Cheikh Moussa da koy indi Cheikh Moussa Cissé moo woote gis yàlla fang daj wax ko gis yàlla boobu nag képp kum tàbbi sa xol doo doon agresseur doo fen doo jëw doo wuruj doo bañ wujj doo diir doo jël sa bopp teg ko ci kaw wacc sa morom ci suuf déedéet da ngay xam ne loo ne jàkk rek loo ne jàkk rek kennal sa borom te képp koo xamante ne nii jàkkaarloo nga ak yàlla yow yaay doon yàlla wala wala wala yàlla mooy doon jaam bi boo doon def foofu jaam kan ngay def jaam bi moo tax jaam maqaamu bu mu mënti am yàlla nga koy misaal ci sëy bi asamaan sëy ak suuf à travers les rayons solaires mmh. sëy boobu ban bët moo ko teg bët waaye nag ba asamaan bi seeg suuf si kan moo njëkk a ëmbal suuf si moo njëkk a ëmbal asamaan si asamaan si ba muy wasin ci lañ ko gis moo tax gis nga ki yàlla di jox muy dem ba toog ci chaise maqaama boobu ci suuf la koy jële mooy talabu mooy sàkku ndéem jaam moom la yàlla jox noyyi ak nokki jox ko nelaw ak yeewu lek ak reg ay jam bobu nonu kan la wara sakku sàkku ku mooy yàlla moo tax ngi wax axlu sunnit yi di wax nan jébbalu dafa haram mané len ñaari bol yu am ak bu amut buñ ko tegee woté añ ci ban ngay sukk bi am da ngay sukk lan motax nga koy sukk do lek bol bi la ca bir bol ba mo la mo la yitteel moy fajj sa xiif kon ndeke kooku noonu nga xamante ne moom nga sëb sukk ne ko aslamtu nafsihi nafsihi boobu nag tekkiwul bakkan dund lay tekki dund ci yàlla du bakkan kenn tekkeewu ko bakkan lillaahi ñeel na yàlla rabbul aalamiina moom mi moom sama woy bopp bi ba ci sama suufu tànk bu ko defee nag foofu ñetti njëbal day taxaw sëñ Tuubaa mu ngi koy wax dalla anillahu ala muhammadin wa xaadali muhammadin fi samat foofu autorise nañ la nga nga roy kamu solo autorisé nañ la nga roy ko foofu munoo munoo tàmbalee ci sa bopp dangay tàmbalee ci ki nga jiitu tas parce que nit mënut a julli te amul imam moo tax kuy julli sax yow kese dañ naan la tegal benn saati mooy kilifa foofu nag doxaan la doxaan doxaan la takk amagu fa sëy amagu fa doxaan la diggante sang bi ak taalibe bi daf koy charmer di dox ak moom di ànd ak moom ci yàlla di dem di ko gondi ba miinal ko boppam ba mu nangu bu nangoon nag ñaareelu njëbbal bi am mooy bi ñuy fas sëy bi tëj tijji am motax lolu buñ koy def faw ñu ñew dajale jami ci pinch diko wax diko wax diko wax diko wax ba mu leer mu ñettel bi suru rapal bañ lay mur ak seru rabal bi seru rabal rabbu nga seey nga jeexi fannaa fanaa fannaa wa jaxtu anta anta ñu ne dañ lay utal topp dañ dégg de topp topp bi kan la dañ naan la àndal ak yàlla del wax allah foo toll waaye lan moo tax du ñu indi seet ci bëccëg ñu koy indi guddi ñuy ñëw dañ naan ko sa yére yi ràpp yi xotteeku matuta yóbbu sa yére yu cëkk yi matuta yóbbu lépp loo xamante ne yére la boo xamante ne daa tilim boo ko bu fekkee da nga ko yitte woon na nga ko fóot ba mu set nga yóbbaale waaye dinañ la dugalaale ci sa biir valise bi ay tissu yoo xam ne doo ko ñaw lu dul ba nga yeggee sa kër jëkkër gis nga nit ñi nañ leen wax dëgg dëgg bi yàlla alxuraan bi mi ngi ne féng ci xaalam bi foofu la yonent bi daan xoolee foofu la ñu war a teg suñu bët waaye du wax ay aaya ndax na mu wàccee woon ci yonantu bi noonu la wàccee ci ñun arfan bil arfin bu ñu gënee dëggu rek gën ñu cee yey te ñun yonantu bi la ñuy diir mbagg yonantu bi lañ bëgg a raw ndax fekk rawuñu ko wallahi lazi la ilaha illa bii du jëm kanam professeur fekk élève raw ko du mën a indiwaat beneen livre bu tegu ci kaw ami éremi am fit de ma ne gis nga yëre yooyu mooy jikko yi dafa am jikko yoo xamante ne entourage bi ay jikko yu baax la yoo xam ne moo ñaale woon nañ la ko dañ naan la jikko yooyu na nga ko jël waaye jikko bi nga xam ne danga ko jëlee ci mbedd bi muy soppi sa xam-xam di soppi sa teggin mu ne jikko yooyu yëpp bu ko yóbbu sa kër jëkkër léegi nag boo ñëwee ñu ne jëkkër ji jox nañ la ko ci sutura nanga ko sànd sàng nañ ko mbalaanu sutura ngela nanga nga ko jël ci sutura sàng ko ci kii waaye bu tëddee rek ñu xëy suba ñu naan waa ji am na ndaw lu waral loolu jël virginité bi tàllal ko ñépp di ko gis mag yi daawuñu def dara ngir dara dafa am lu ñu daan junj gis nga yére yooyu noonu dañ siy boole dàll carax yu bees tàq mooy yow doxin ba nga amoon waratoo am beneen doxin lu dul ndigal bi la sang bi jox amul beneen doxin muy charia muy waxi Serigne tubaa muy waxi ku mënti doon yooyu valabalatul sa diggante ak sëy bi ak sang bi moo tax tasawuf li nga wax dëgg la ndigal la ndigal. yére yooyu noonu da ngay dem ci boroom kër gi mooy maanaam moom moo lay tànnal nag jikko yi nga xamante ne ak saay kun moom la bëgg nga jikko yoo ko ngir lan doom yi nga xam ne ñoo fay juddu. gis nga lii képp ku mu leerul képp ku mu leerul waroo takk sëy waroo takk soxna te gis nga sëy li ci nekk soxna asiyatu alxuraan seede na ko de hadis seede na ko de nitu yàlla yi seede nañ ko de ne ruuxam ba yëg na ci kaw te pourtant la ku ko yéegalal mooy sëy boobu nag saayir la baatin na yàlla yow tabaxal ma kër ci sa jëmm mu ne ko asiyatu lii du lu ñuy maye dañ koy jaay mu ne ko lu koy jaayee mu ne sëyal ak Firawna mi gën a bon te représenté Iblis ci kaw suuf te bul lijjanti mukk lay wareefam ci yow waaye lijjantil yow soxna Asiya sa wareef ci moom ma ne sang kenn du ko lijjanti wallahi allazi la ilaha dëggu yàlla bii dëggu yàlla bii dëggu yàlla bii bàyyi ngay jox nañu fulla bu mat sëkk te dëgg rek lañ siy wax moo tax fii jamono toll pays bii Mourtala pays bii dëgg moo koy yóbbu dëgg moo koy àggale te dëgg moo fay samp jaam amaana nag xaal la ngir danga nga yëkkati lu rëy teg ko sunu ndodd bi te ñun ay jaam yu xeebu lañ yoo nga xamante ne wallaahi li ñu sas li ñu jox li ñu tuddee amuñu maqaamaam lu toll ni pepp fël-fël moo tax tasawuf balaa ngay jéggi sa tànk di ci dem gëstul bu baax gëstul bu baax ndax ci biir tasawuf amul bëgg leneen lu dut yàlla gis nga ci biir tasawuf amul bëgg toog ci chaise amul bëgg am taalibe amul bëgg am oto amul bëgg lenn déedéet biir tasawuf laa wax li ci nekk du ay chaise de du mbubu de du taalibe de barki laa ilaha illa ka gën a gore ci yàlla la loolu nag moom la yonent bi doon wax sawaun baynanaa wa baynakum nay leer ñoo ci bokk yam de laa ilaha illallah kennal yàlla sëriñ beeg taalibe bi ñoo ci bokk yem képp ku ko bàyyi rek summa radadnaahu asfala saafiliin ndax yàlla moo ñu boole laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwiim meloo moom ñun ñëpp la boole jant bii ñun ñëpp la ko boole motax damai damay wax ne kep ku nga xamantene ne dafa yaakar ne la Serigne Touba ta amat yow da nga waye di te xeeb yàlla da nga waye di te xeeb yàlla xanaa ci jëm rek nitu demb yi nitu tay yi kena leen gën kena taaru ñoo leen ler a xam yi leer giñ daan jot tay leer gi jam yi di jot fi moko ëpp doole fuf nga wax dëgg la